ah kon mbokk yi dellusiwaat nañ ci ah Mohamad Abdullah ibnu Seydi Afdosan ci Seydu Difaaq ci afaqu siir yi ci ñaareelu xaaju muri murtaniye ci xatam cent quinze bi téeméer ak ak juróom ah lan ci bàyyi waxoon na fu démb ne fasikro kalil arlil arwaahi aryabu yow bàyyi sa tur wi li gën a teey ci dunduwaay ruuxu moom la sa bëgg la yow bàyyi yéegeekaay la boo xam ne ah mooy waral ku yëkkatiku mooy tax nit ki am fëtt bëgg la bëgg bàyyi wasiluka la nit ka daifun bi jël bii dañ ko tàmbale walam yaxsa zulman fii harban warasan wasi lu ko sa ker lam yéen ka du xekkati daifu ku néew doole bi jën yi jën yi ci côté bi maanaa yow sa ker gi ku dikk ci côté ah métti métti du uñee kóoti du uñee kóoti bi maanaa du amati métti métti walam yax saan ragal salman sulman tooñ fii ci moom xaar ban guerre wala sulhan yow boo dikkee fii ku lay guerre ak ku ci ragal ci kenn wa innaka la la wala yasmaul awi ilayka wala yatfa wa innaka yow baay laa taxsa du ragal bi baabika kenn ragalu ne bu dikkee sa bunt day perte mhm. bunt bii kenn dafa ragal perte wala yasmau du mar al aawi kullaqa ika caw wala yata du keñaarloo bi maanaa doo liw mhm. yow ku dikk ci yow du marati du toog naan dama liw wala dama jaaxle ci lu bopp mhm. du am de ah waqafuka xunnun la yemilu wasinatun ووفق در خير اللسن واللقى ما ديف ndax mu koy xam wakkamu ko xeñtu la pour mun koom la yow bàyyi di la xam sa jaaruwaay li ca jaar koom lay doon ah boo xamante ni laa yemilu du wàññeeku ma wut noo poids wut bi maanaa koom boo xam ne poids am du wàññeeku ku lay xeñtu woo wës fukkee ni nga mel yow bàyyi ah, danun mbaax la boo xamante ni xayyara gëlamal naa àllu sun làmmiñ yi wal malha li nga xamante mooy yu xorom yi yow sa melokaan dafa gërëmal li nga xam ne mooy làmmiñ yi wasaatu ka sa jëmm ci nësul mukaramaat mooy yuleekaay tiraanga yi wala saxekaay tiraanga yi wasaruha mooy seen li koy witar mooy li koy wéral sa jëmm ci moom mooy yaxu yaxu tiraanga yi ak saraa moom la xam nga saraa ak yax liñ bind ni ak léegi saraa bi yow na sa jëmm ji moom mooy yax bi mooy saraa bi ah kon nag fa ànduka say jëf xat ah, alfaytuka fekk naa la anna sa yow yow mooy yax wa sara mooy saraa yow sa sa jëf yi sa jëmm ji ak sa wax moom moo jëmi téere bi mooy jëmi sara bi wa alfaytuka fekk naa la man Mohamad Abdallah dërë wa alfaytuka fekk naa la asam sax yaay jant allati boo xamante ni ah, bi soxaaya ci ay jeneeram ba daa la feeñee aruf du lépp luñ jot fekk naa la ay jant boo xam ne jeneer ya jeneer jant bi yaay sa lumière ca la nekk njub wal bahra ak géej àll ji yoo xamante ni en jasalot naa asaba koy fay yaay géej yoo xamante ni fay fay yow ba traversé yow sa jant bi gis naa la mooy jeneen gis naa si géej gi ngay géej yoo xamante ni kenn la fay buy guddi buy gindi yaay jant buy may yaay géej waal feeti ko fekk naa la aruko naay ponk al mu assasa boo xam ne dañ ko fondement li taqwa ci ragal yàlla ko pied boo xam ne fondement ragal yàlla ci ko fondement yow loolu laa fekk sa ponk mooy ponk waaw léegi nag lañ wax lan lañ waxoon ne melokaan taqwa rek moom la yàlla wax ne mu ëllëgee may nekk sama na sa fekk naa ne sa ponk bi yaay ponk taqwa ah da nga waxasanal ol yi wal baana wal asa wal sata wajnal wulaa yow yaay sa tay koy yow fekk naa kowe yaay ko sañ wal baaba yaay bunt kowe wal asa yaay fondement kawe wal fatha yaay terrasse bi nga xam ne mooy terrasse kawe yow yëpp yaa ko doon la ilaha illa allah walam yebdu feeñul illaa sinn lu mooy ker mi ci yow lépp loo fi gis dee ker la goo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sa ker yow loo fi gis nii nii man li ma lim nii loo fi gis rek mi ngi bàyyi ko ci yow kon wala yu da ila silla min wa doona woo gis na ko suma suuf ay jant tilkal fahmi boobu dégg-dégg lii nga gis gaa yi yére ko nii ma nga bàyyi koo ker la boo xam ne ko bàyyi ko sa jant te nag sa gaa yi li ñu yore jant mënu ko jot suma su tilkaal fahmi wasami ak dégg wala ma li nga ak yeddeku yi ah ah dinaa ko de doona ko su moosu ay jant ma ne lii dégg-dégg yi nga xam ne moo jógee koo ci jant ba dégg-dégg yi sa jant bi dégg-dégg yi sa bàyyi koo munu tuddee ay su moosu wa doona su moosun ay jant teg dana lot alfahma dégg wa samha wa lama loolu nga bëgg a dégg waaw wax naa ko waxoon naa ko nag ah dégg nga ah, wala faniya aqlaam wa sufa wa dawaa bi matika maa jaarat na min rasa laa ilaha illa maamal Abdoulaye mu ne ko bàyyi walaw fan ye bu jeexoon al aqlaamu xalima yi xalima yi yonoon binde buñ bindee ba xalima amatu wa suufa ak téere yi kayima yi bindee ba xël dañuy bindee amatu wa dawa ak daxa yi ñuy bindee muy daxa ñu day ba amatu ñoom ñëpp buñ jeexoon bi matika sagg na maa jaawas na jàgguñ min bari ci géeju bàyyi wa rasat invitude invitude ca lañ ci lañ ci jël tuuti lañ ci jël waaye ñoom mën nañoo wax tagg bàyyi bàyyi kenn mënu ko tagg jëlal xarima yi fi nekk yëpp boo ko doon tagg du jeex day ak daay day jeex takk ma laa si sama riir waay kenn rek la kan mooy abi Issa sama riir waay daal man ak ñu nitam bi mooy abi Issa yaa mun taal mun naa yow mi xam ne yaay yéemaloo kaay mi bët yi wax na dëgg de ni mu ko tuddee sooy wi ba numéro un doon wi ba numéro deux doon wi ba numéro trois doon wi quatre boo dikkee ba ci moom mii sa mébét jeex na tàkk tàkk amatoo la ñu wut alhamdulilah rabbil alamin mars na ma wax ca koy na ma oustaz Guèye Kara soxla jeex na ma ne ko tàkk yow laa bëggoon a xam te xam naa la te xaw ma nag booba sax xaw ma woon lii moom <laughs> ah léegi boobu da wax <laughs> ah, nag ngi nii booy xam ba xam ko sa muntaa yaa muntaa wayaa maa dexal bu sara yow mee xam ne yaay may mbégte wayaa maa maahidal nusha yow mee xam ne yaay sellal ay lay biir bàyyi bu lay digal digal la dafay set ci bàyyi bu lay bigal bigal ba lay neex xasatu ko jublu naa la man Ibrahima man man ko Mohamad Abdu Mohamad Abdullah wal iqaanu wóolute yàq hmm. yi moom a xiir mi wax set sama jubluwaay wóolute moo ma ju moo tax ma ne ma demal li nga bëgg lu wóor ma ngi cew Cheikh Ibrahima mooy lan li tam dut pour nga tëbb ma bi saatal xor bi laal toog jegéen laa bëgg nga tàll ma li sëb bi ci soppee wala tafa ak li nga xamante ni li nga xamante ni mu tàlleeku li nga tax ma dikk nag nga tàll ma la lal nga xam ma lal jege ah wan xima in xerfaani a naka nakaaba musaahib musaahidi a li bari soodin fii ka laa nasa maa ngi lay laaj ba tey ah waxan ximmatil xerfaani maa ngi lay laaj njomboxtonu marifa mari boo xam ne moo tiim ci mari boo njomboxton boo xamee ni ah ba dafay këpp musaahide yi ñi nga xam ne ñooy janoxante man ma àgg si njoloxte na mari mari boo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi dawlante man da ngay këpp li baari soo soodin ndax lan géej ak jano fi ko caw laa yartata du ragal boo xamante ni nag san géej goo xam ne géej goo xam ne ragal mukk mu ngacce fa inniya man Muhammad Abdullah mul tarun kun soxla wala lool wala bi baa bi ka sa bunt waa xam naa fi taxaw maa ngi nii taxaw sa bunt awma beneen fu may dem buntu bi lay taxaw óora ji maa ngi yaakaar dikk ceew a tawfiqa sens wal fata ak ubbe war na daxa ak yàq damay faj aajo fii laa ko sa yaakaar ñu ngi taxaw ñun ñëpp ci buntu bi kon jàppal déglu bu baax li may wax defal Mouhamed def nii ñu ngi nii toog sa buntu bi ah yaakaar nag lii dina am óora ji bi ka tawfiq wal fat war na ñun ñëpp ah wala ma addimtu ba ma ñàkkee almaala alal ñu ñu ngi taxaw de ba ma ñàkkee alal wala elma ak xam-xam wal baxaa ak taar ñii ba ma ko ñàkkee ñu nit bañ ko ñàkkee raqibtu laa xenam bëgg naa ko de wa min haa ci moom itadat la moo gàllankar am daaw ka ripa lii nag moo gàlla moo gàllankoor moo dikk gàllankoor yi nga xamante ni mooy bénéfice tag yi lii maanaam moom lañ moom lañ war a bokk bokk wamina ihta dana bokk am daaw ka riba ñi nga xam ne ñoo la tag ñoo la tag fii lañ bokkee ay bénéfice ñu lay tag buñ lay tag rek ci lañu jëlee xam-xam xel alal xam-xam ak taar moom nag kon ñu lay tagg ci lañ jëlee ci lañ ko bokkee waqat euh, waddati al xasaalu xasra euh, wa xëybati waqat wa def bëgg na alxasaali ñu ma yedd ñi ma yedd bëgg nañ xusri yi ma perte wa ak ma ñàkk man a duñ ne perte na ci njaay ma wala man ma sooy ci njaay ma waaye nag ñoom dañoo bëgguñ bi foo si ma gañe kon nag fal tas du di ngal la waay na na gën a accéléré alaay ali ci man xoot lii al këpp ñu këpp bi maanaam ñi may gën a xas ci bàyyi ngallaawaay nañ gën a xasaat man nag nuñ ma gën a xasee rek xasee rek la maay gën a am bénéfice waaye dañ foog damay perte waaye man dama perte man ci perte. salaatun wa taslimun ala mahbatil huda wa alimu ashabin bihi ahsanu rimha ruha salaatu salaatu wa taslimun ala mahbatil huda fi yàqal yàlla nekk ci gaaras yoon am nga gaaras njub am nga gaaras gaaras njub mooy bàyyi gaaras njub yàlla na salaatu wa salaam ala mahbati uda wa ali alu jege ñaale wa ashabin bi ci moom ahsano lay rafetee aruha seen sànni fa ñuy sànni seen xeeja fii lañ ko rafetee mën a xam sànni xam nga man a sànni ba tey xaalis dafa war a man a sànni xam sama xalaat bu ma ko sànnee fii dina jëm loolu mooy sànni xeej jël sa xeeju xalaat yi ba nga ko jàmm sànni nga jëm ko na fekk nag boobu nga xam fu nga xamante ni mooy fettee kaay ak kala jàngal fett bu la jàngalee fett ci kër baay boo jamee boo fettee janga boo jamee da nga kon nag dana jàll asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu yaa ngi ni tolloo ak li nga xamante ni ah mooy bunt bi gisaakumulaa xanaa